waaw yëpp ñu nga xam ne politiquement ñi ma woo am na ñoo xam ne sax dañ ma woo ne ma waaw boo fi waxee waxu report ah Ousmane Sonko day ñëwaat te bu ñëwaatee du baax si ñun. Ah yooyu yëpp am na ci xam nga ku nekk da gars yi dañuy wax nii rek di coow. ñu ci bare seen motivation c'était des motivations personnel te man wax naa la ko fii keroog <laughs> yow yow yow yow wax naa la ko fii. dama leen man aw ma eh. intérêt de port parce que je suis le mieux placé pour gagner cette élection nga ne yow ah, yow gagné élection yow da bu doon keneen xam nga loolu nga ma waxoon ba nga ne ba nga rappelé li nga wax Macky Sall ma leen man pare naa pare naa sama parrainage am naa équipe taxaw naa am naa programme mën naa gagné élection man élec report bi arrangé wu ma mais sama aqulaay taala ak sama digganteeg dëkk bi ak li ma gis ne fa lañ jëmoon looloo taxoon ma ragal. mu jëm donc gars yi woo ne la report bi. Ousmane Sonko Ousmane day bokk te bu bokkee dañu mën a yow xam nga wax nga ko léegi. Ah. ne ma wéy eh, waa ji de day wax que xaritam bi rakkam bokk ci yi moo tax mu bëgg ñu may temps pour ñu régler dossier am na loolu. am na ñu ma ne Macky Sall am na sax sama benn xarit dafa ma envoyé message ne ma wéy tu veux tu veux tailler un mandat supplémentaire à ton ami Macky Sall mais bi affaire yi paree dafa ma waat ne ma malheureusement tu as raison sur on aurait dû être plus vigilant